waajal bi. di waajal réet bi. macha allah. 2023. ah boobu looy waaj. saf safal rek. Eh. ba mu saf saf. incha allah. aroma seeg jimbo lépp la ñuy wis. ah balaa ñoo yëg ci kaw ah Oudé. Oudé réet réet pare leen. jëlal jëlal taaral jur gi. taal jur gi ñu mos ko. kii mooy bés bi nga xam ne ni céréales lay jóge. waaw bii mooy jóge Burkina. kii mooy mboq gar bi. waaw kii mooy mboq doom bi. kii mooy toor tóortóor ba tey bi nga xam ne Burkina lay jóge ba mi ngi jóge Côte d'Ivoire. kee nag mooy ràkkalu buy bi nga xamante ni bii moom lépp mi ngi ci biir ràkkalu buy feer kël soom puri tey ni bàyyiwul dara baax ci nit baax ci jur gi baax ci lu mën a doon lépp pour xar yi lépp pour xar yi fi moom loo fi gis rek ku bëgg sa xar taaru rek bay boo nga ñëw fii fi mooy kii mooy asilix moom it benn produit la boo xam ne mi ngi jóge ba Tamba di produit bu baax ci jur gi macha allah am ay vitamines yu ñu ko liggéey ak yeneen ak yeneen. en silice li ci kaw la bu baax la. moo nekk nii waaw moo nekk nii. mboq la boo xam ne dañ kaa wal. boole ci ay bagage ci biir. macha allah nga xam ne jur gi koy jëfandikoo rek da rafet da ngay taaru da ngay wér. allah. bu ko defee rek. waaw ñu dugg. waaw fer fer fer AES yi aussi moo nekk nii. waaw. yi nga xam ne bépp xar bu koy jëfandikoo. Hmm? sa karaw day ruus. indi la karaw gu rafet baax ci tànk baax ci wér gi yaram waaw bu ko defee rek. champion yi nekk noonu. Amadou Mbodj nekk nii kii ak jigéenam la ñu naan ko madame Sarr la. ok kee mooy trondoom bi ban madame Sarr la madame Sarr Guèye. madame Sarr waaw bi ne ko Sarr Guèye waaw. Ah. waaw jabaru Sarr Guèye moom laa ko tuddee. ok waaw kii mooy Jimer Diaw. waaw ok kii photo sëñ Muntaxa bi moom ñu ko àndoon jaarim 2015. ok bi may yóbbu sama xaru. Tabaski addiya 2015. ok fële moom ñu ngi ko foto woon ci Poroxaan. macha allah waaw boobu yàgg na. kii mooy bi fi Aminata Mbengue ñëwee. bi muy soog a def ministère. kii foire Touba woon bi ñu ma tuddee woon à 2015. ok bi bi fi Aminata Mbengue ñëwee loon ki mooy suñu ancien président docteur Pa Ali Diallo Omar Sadessi As Teysen Ngom. El mbay Mbaye moo nekk noonu Ibrahima Diagne nekk ci diggante bi ñu gën kaa xam ci Oudé. ah jërëjëf Rasulullah. it ba tey foire 2015 la woon bi ñu tudd woon Pape Ibrahima Ndaw ok euh, bi fi nekkoon ñu di ko wax si ba tey moo nekk noonu. ok bi itam foire bu yàgg la woon bi ñu demoon Dakar ci Obélis booba premier ministre Abdou mbay moo nekk nii bi 2012 la woon bi mi ngi nekk Souleymane Ndéné Ndiaye nekk 2000. 2011. ok waaw. macha allah ci archive yi la bokk. bu ko defee rek ngeen xam ko ba tey. kii jur gi ngi noonu jur gi ba tey. bëgg ah. jur rafet ah. yi nga jongama yi. <laughs> ko femelle yi. kii mooy ñi takkal maal yi. ok waaw yii moom pour maal édite yi espoir yi yi ba tey pour borom xaj yi xaji gardien yi berse allemand yi ak yi yii moom lañ leen di yeewe lii moom la ñuy def seen gémmiñ yi ba duñ mën a lor benn nit waaw bu ko defee yit ba tey pour mâle yi la kii pour femelle yi la kii biberon la boo xamante ne waaw kii pour biberon yi la yoo xamante ni xarit bi nga xam ne sa yaay dafa loru waaw amoo ku la nàmpal ci biberon yi la ñuy jël biberon yi ngi jóge ba Allemagne ok waaw moom la ñuy def biberon pour mbote yi. macha kii saabu la bu baax boo xam ne moom lañ leen di sànge boo xam ne day rey fel yi. Ah. rey teeñ ba pare day waddal karaw gépp da koy dindi. macha allah bu ko defee boros yi mooy seen njàmpe. njàmpe xar yi moo nekk nii moom la yaram. bu ko bépp karaw bu dee bu nekk si bind yaram rek koy dindi. waaw. macha allah xam na moom képp kii nag moom vitamine la boo xamante ne bii lépp mi ngi ci biir bii moom la ñuy wax. saf-safal jimbo ak sàppaaral kii mooy taaral jur gi moom it dafa bëri calcium macha allah fer bëri protéine yi macha allah waaw wax dëgg yàlla li def ci jur macha allah mm. bu koy jël rek ak jur bu ko dul jël kilifa ah, ñu ngi ci bi <laughs> da nga ana du parce que wéy bu guddee yenn guddaay yi rek day yàq seen taxawaay bu defee sikaat yi moom la ñuy teg seen wéy yi waaw bu ko defee rek maam Cheikh Ibrahima Fall ko kii kenn ko laajte ci am lu élevage macha allah waaw maam Cheikh kenn du ko laajte waaw doomu Mara Mbaye Ngo lépp sàgg Mara Mbaye ci moom ay mélange ak ay yel waaw yii kii moom lépp lu jug ci jur rek kii mi ngi nekk repas benn aliment bu ñuy wax duufal bu ko defee waa Forodaas ñoo ko liggéey kii mooy lem ki nga xam ne mooy jóge lu nga xam ne moom dafa baax ci xar yu ëmb yi. Ah. waaw kii moom kenn du ko laajte xanaa super laadum. ah waaw kii NMA moo koy liggéey di ñu ko servi kii ba tey ay saako mélange la bii mooy jarga. jëlal jarga bi jarga bu grand moulin bi waaw jarga mom, dafa yàgg ci réew mi man ay ko jaamu ji kii mooy champion bu jaabi waaw moom éleveur bu mag la ah, ah. mi ngi nekk ci sax ah, kii pap moom wax dëgg yàlla ci ndaanaan yi la bokk macha allah le grand champion bu dee ñi ci ginnaawam nag jaajëf macha allah champion bu dee duggee rek moom moo tax waaw macha allah champion bu dee yor na ko du ma kii quoi man du ma grand niveau comme waaw waaw waaw ñëw waaw non moom jàmbaar la wax dëgg yàlla macha allah Vox Magal TV mbokk internet yi gis ngeen eh, jóge na ci suuf Oudé eh, wan nañu li nga xam ne moom mooy taaral jur gi ak li xaar yi du dundee Oudé. Ah, rafet na trop macha allah waaye ñëwaat nañ di waaj réyit Oudé ñu ngi jëm ci réyit ah réyit nekk bii ñaar nekk ñaar édition. waaw réyit de bu fekkee ne moom boo xoolee ci taarix moom wax dëgg yàlla ak yonent bi mën na ne Sénégal ñi fu njëkk a def foire mën nañu wax rëyit la mais diggante bi nag bi mag ñu wàccee xale yi jël ko hmm. fi mu toll ñoom ñu ngi seen deuxième édition muy xaadim alaam ak Papi Dieye ak xaadim kan ak Matarlo ak Nganja wax dëgg yàlla di ay ñoo xam ne ñu nangoo sonn ci liñ leen dénk la di ci def seen doole ak seen alal bu ko defee rek ah ñu tàmbali waxtaan wi mais moom lépp lu ñu def wax dëgg yàlla ñoom lañ ciy jiital rawatina docteur Pape Ali Diallo Pa Amadou Ndiaye Mbaye Cissé Antoine Willier wax dëgg yàlla ñoom ñooy cosaan yi waaye nag ñu demee ba xam ne wax dëgg yàlla liñ naan nguur kenn du ko ñedd dañoo daal di woo xale yi rek daal di leen di jébal leng yi topp seen ginnaaw nag di leen gunge bu baax a baax nag ci biir ak biti ci saayir ak ci baatin tay ñu benn yoon boo xoolee sax mag ñi wax dëgg yàlla dafa mel ne ñooy gën a sonn xale yi ngir bëgg rek yëf yi rafet yëf yi neex lépp jaar yoon jërëjëf euh, macha allah nag nekk luy neex mais ni ma leen njëkk dañuy duggee rek daaw. Mm. dañoo ñëw rëy euh, macha allah euh, bergerie Xaadim Rasul euh, kër Xaadim Rasul. élevage kër Xaadim toj fa. ngeen génne woon fa macha allah non non seulement sax ngeen def exposition bu rafet. Mm. décoré foire bi waaye seen champion bi génnoon fa muy nekk waaju baax battre meilleur poids record dafa record poids waaye tamit dafa am benn benn mbootaay bu fa juddoo woon muy promenade des Thiessois ana ana promenade. promenade des Thiessois moom à la sama benn booy laa ko mujjoon jox mhm. mu dem liggéeyi foofu comme maa ngi woon ak ay magam fii ak ay rakam ca lu baax lépp mënoo ko téye ca wolof Njaay danaan lu duuf lépp xajul ci cin li moo tax il faut ngay partager pour lu baax lépp mën a yaatu. macha allah waaw macha allah euh, tey nag euh, ñu ngi waaj a rëy nooy waaj a waaw rëy niñ koy waaja mooy nañ ko daan waajale rek moom duñ ci sonn duñ ci tàyyi ci lépp luñ mën a def ba yëf yi neex rafet ñu ngi ci guddi ak bëccëg bu ko yàlla dogalee. macha allah waaw riit moom duñ ci sànn duñ ci tàyyi. macha allah waaw te mooy foire bi nga xam ne le meilleur foire ci Sénégal. Hmm. waaw le meilleur mooy foire riit. macha te ku fa ñëw ren di nga xam ne ah cin yi bari na de waaye cafka yi du benn. du benn non cafka benn loolu la yàlla dogal. yàlla dogal na moom foir yëpp riit moo ci gën a saf foire. ca bañ àgg ca lépp day leer laadum Cees la soxeeku. am waaw laadum Cees la fekk baax. Ladum, hmm. mag ñi ko fi yoroon ñoom pa Sadi si ñoom pa Antoine Willier ay Simer Diaw ay ku pa Amadou Ndiaye ku mel ne ay Matar Mbeng ku mel ne ay Mbeng Balaabe ku mel ne ay Jaawara mënumaa lim ñëpp daal boo limee rek da ngay jum waaye laadum la fekk baax ku pa Sadi si doomam nek Omar Sadi si wax dëgg yàlla moom ba tey mi ngi yëngu ci xar yi ak ay doomam ak i sëtam wax dëgg yàlla ñi ngi ciy yëngu ba tey laadum la fekk suñuy moyen mo desee mat ba nga xamante ne bii Dakar ñëw ci ñu tuur xaalis rek di jël di yóbbu mais teewul nag ba ñi ngi jafandu parce que bu ñu organisé rek ñu xam ne Thiès na ci Thiès aaye na loolu moom def nako ko. macha allah waaw. Euh, tey nag euh, élevage Khadim Rassoul euh, yo yan sujet nga mo war a mën a jox ñu dem ak moom Thiès. fi mu toll nii kay siise boo bëgg mi ngi fi. ligne Roi Basir mi ngi fi ligne Mimsaat mi ngi fi. lignée Karim Meïssa mi ngi fi lignée Madagascar mi ngi fi wax dëgg yàlla Karamoxo moom daal yàlla dogal na moom lépp mi ngi fi. Mm. waaw ndax Abdou Fata bu ci kanamee tuuti boo génnee doomam Fata nekk doomu gore vraiment def na fi ay tëng yu doy waar. ba tëng yooyu ñu ngi soog a taawlu ñoom it def fi liggéey bu doy waar. macha allah kon ci kan yi tàmbalee ko ko koy laaj. ah indi sii di ndaw rek ñu présenté ko doomu Mimsaat bi nekk si trois Basir. macha allah. ñu nekk ci Sidi Ndaw. waaw Sidi Ndaw moom Sidi Ndaw sama rak sama xarit moo ma ko joxoon. Uh-huh. defal ma ci lu baax a baax wax dëgg yàlla waaw xar boo xam ne fay nañ ci ay million mu yëkkati may ma ko wax dëgg yàlla kooku dañ koy ñaanal mu yàgg fi ca wér waaw. macha Ndaw xam naa ñaari atam nag dina topp moom. Uh-huh. jàpp ma weer dëgg-dëgg ma ñaari atam dina topp. ndànk ndànk rek sëriñ ndànk rek. ren eh, eh, ren di eh, ren indi nga xar concours wala. waaw ren de moom wax dëgg yàlla dafa fekk ne xar yi ma yor am na ci yoo xam ne mën nañoo concours mais yeneen xar yi ñu war a maasel dañ leen di mag lu bëree bëri. mais seen i macération ya moom képp gis ak seen production di nga xam ne ay xari caaxaan. Mhm. waaw te xar moom li gën am solo mooy production bi ci yàlla defal na leen production. ndax Sidi mii buñ la ko génneel man nañ laa génneel Sidi ak doomam ak sëtam waaw waaw kii mi ngi ci ñaari at yu topp mais bu waroon a conclure mal edit lay dem ci mal edit yi dañ koy magelu mbat ay ñaari at wala ay at ak nangam xam nga day xaw a doy waar moom ñaar moom moom ñaar. Euh, waaw ñaari atam war na topp tuuti rek. topp na tuuti euh, kan la moom nee naa la Saat mooy baayam. waaw Saat moom la Sidi Ndaw jëndoon vingt cinq millions. waaw yaayam mi ngi nekk sa trois Basir nekk doomu ma sàcc wax la. ok waaw. foofu la Sidi Ndaw bokk. Sidi nekk nii. waaw na ko caméraman bi jël. waaw du mu koy ah, mi ngi ñëw. dina ñëw foire ba. waaw incha allah rabbi. bi man day kàddu laa von ak salon maa ngi bëggoon nag ñu kem ma box waaye dañ ne daal <laughs> day eh, ëpp day ëpp daal ndax ñi bëgg ñëw dafa eh, eh. te ñëpp box. ok waaw macha allah ah Sidi Ndaw Ngop mbokk Samagal TV ngeen xaar ko euh, rëy. moo ñëw def euh, def ma ni nag moom ko xool xam ni bu rafet la day dafa am ci ay doom wala. waaw génneel doomam ak sëtam. Uh-huh. génneel doomam génn sëtam kii moo jur kii uh-huh. bu doon ñetti booy amoon na fi sax day génn sëtam ak sëtaatam ah, waaw mooy man naa ne mooy yaayu gerte gi jamono yi famille yi fi nekk moo ci war a mag ci nga xam ne cosaanam fii la moom maamam maamaatam yëpp maa ko juddulu waaw moom sowal yaayam doomu uude la uude nekk doomu Awa Guèye ak Lat yaa ñaata porté la am Joal ñaata porté nag wax dëgg yàlla jàpp mu ay porté ndax dafay xaw a am ay fan. Ah. waaw dafay xaw a yàlla ay porté moom. <laughs> jàpp moom xam nga jàppoo fii la mais fii la fii maa moom fii la juddoo wax maa fii la juddoo. doom ji doom ji moom ñaata doom ji moom ñaari porté la defagul. ñaari porté la waaw. doom ji moom Aminta Mbengue Aminta Mbengue. quatre pala ko jur quatre pala Aminta Mbengue ko jur moo tax ma jël doo tur wi delloowaat ko maamam waaw man noonu lay liggéey macha allah. mais mm-hmm. ñoom eh, seen weer nu mel doon amul benn problème. non eh. dañ nekk ay laitière rek. waaw ah, ah, mais ku ci am doom bu nampee une semaine rek weeni day yéegaat ci kaw. Ah, mm-hmm. macha allah. yéegaat ci kaw oh dañoo porté ñoom ñaar dañoo porté fi mu toll nii. Euh, ku moom kii ci Sidi Ndaw la tëb kee ci benn rek Sidi bi ñuy wax Roubé. joxe naa ko mi ngi Dakar. Roobé am na fu ma ko doon dégg de. waaw mi ngi ci Mamadou Bassir Wane. waaw kër Mamadou Bassir Wane. waaw Caaroy Asi. Caaroy Asi mi ngi foofu. waaw dégg na wax nga dégg. waaw fa tàmbali liggéey liggéey. bu waaw Roobé est du du kii moom la jël ñu jël euh, kii. ñu jël Ñang Baalu. waaw Ñang Baalu. ah waaw damaa def moom émission mu naa ma Roobé mi kër ga. ma Paa ko jox. ma ne ah, loolu rafet la. ma ah? ko maa ko jox. macha allah. ay dugalal ma ngeen ma ñeneen. ah nga dëgg Roubaix Roubaix <laughs> <laughs> euh, euh, kii nee na Roubaix koy rey. Euh, Duudu Duudu. borom Japon. waaw nee na nee na Roubaix koy ñu yàlla ñun. beneen femelle génn espoir la moom kooku. espoir la waaw. Uh-huh. espoir la. Uh-huh. kooku mooy taawu Fata ci kër gi. Uh-huh. doom ji sëtu Koromoxo la doomu Koromoxo bi nekk ci biir moo ko jur. ah waaw. moo jur espoir bi. waaw moo jur espoir bi waaw. macha allah moo jur mbote bu góor bi kii mi ngi judd suuru korité mbote waaw moom laa ne fi mu toll weer ak juróomi fan wala ñetti fan ci lay war a toll. boo xamee suuru korité rek boo nattee nga xam weer la ak ñaata fan la waaw. macha allah. espoir bi moom it moom bi mooy premier porté. non mooy deuxième porté. Ah, dafa waaw dafa teel a taawlu nag parce que. même bi muy soog a jur bii rek presque ci jamono boobu lay fooq mais taawam nag dafa dundul ah dafa dund. waaw taawam dafa dund waaw. macha allah. Hmm. ah production bi kon eh, yii moom eh, ku ci nekk wàcce nga yi ma fi bàyyi woon. waaw waaw mi ngi noonu waaw doomu Fataay lañ ku ci nekk wàcce nga waaw. Ah. ok léegi génneel sëtu ado bi ak doom ji. sëtu ado bi ak dugal ko kooku. waaw mais Oudé. sa gars yi kon eh, defe naa ni waa waa Zawal it ñu ngi wàcc ñu ngi wàcc foire bi de. waaw su waay waaw ñoom Sarr ñu ngi koy waaj bu baax a baax ak ñoom yikki nii uh-huh, uh-huh. ak waa mbuur gépp ñoom Latir Cissé uh-huh. waaw waaw bi na day waar ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ba sëñ Bay ñëw ah, dafa noog dafa noog dafa noog puus bi ndax da cee baax de waaw puus bi am na ci solo lool ndax dina fekkoon ñi nga xam ne da dese nañoo jekke di ñëpp danañ mën a jekke si ndiku mu nekk di deux au douze waaw ah, hmm. baax na trop ci foire hmm. kii kan doomu Fata moom tëng la àggagul ci espoir parce que bi mu foqeeg léegi yàggul. Uh-huh. ah bi mu foqeeg léegi yàggul waaw ah, bi mooy premier portem moom it doomu Fata la. ok waaw. macha allah. doomu Fata waaw. xam naa moom ci ay 16 mois kon. waragul àgg foofu. non waragul àgg xam naa ne ay 13 mois yooyu rek. Ah. normalement ay 13 mois ci lay war a toll. macha allah. Mm-hmm. moom moom nga teg ci Fata mu jur mbote bi. moo jur. bu moo jur femelle. waaw kii. kii Serigne kii génneel papaam. après génneel papa ji ak doom bi. papa ji mooy kan. papa ji mooy Jibi Gueye ñu naan ko Jibril. waaw papa ji mi ngi nekk doomu Koromoxo. Uh-huh. ma tudde ko sama benn doomu xarit bu tudd Jibril Gueye ñu naan ko Jibi. Uh-huh. waaw. baal yaay ji rek baal yaay ji du dem fenn bu gisee. papa ji moom fu mu ne woon. itam fekkoon naa fa wala. non papa ji nag bi nga ko fii fekk boobu dafa fekk ma dénkaane ko ndax booba jeune mal la. Ah. ma denkoon ko sama benn xarit bu ñuy wax Galaay. Uh-huh. moom foofu la taawloo ci kër Galaay. bu génnee rek boo xamoon Karamoxo boo ko ne jàkk waaw jàkk da koy xam waaw waaw xam ne kii lii ñu Karamoxo ah, la kii nag moo jur mbooloo yi fi jot a. Serigne Teel. ku la waaw moom fii la juddoo ci man. Ah, yaay ji def feebaroon après sii di indi ko fi pour ma traité ko bi ma ko traité ba yàlla dogal mu juddu. Mm-hmm. ci lañ noppal yaay ji biñ noppalee yaay ji nag di ko toppatoo di ko toppatoo ba yàlla dogal ci la am njaboot presque mbot yi nekk ci biir yëpp moo leen jur. macha allah. Mm. ñaata mois moom. moom normalement normalement ay normalement daal bu ñu xoolee ay 17 mois yooyu. Mm-hmm. normalement ci lay toll. 17 mois waaw 17 ci lay toll waaw. Ah, jël na bàyyi de. waaw. 17 hmm? normalement ci lay toll. moo jur mbote bii. moo jur mbote waaw. moo jur mbote bi ak doomu fataa bi. waaw moo jur mbote boobu ak doomu fataa bi aussi. macha allah. Hmm. ah rafet na. non moom daanaan la moom. Ah. moo la rafetaay mais production bi sax moo gën a rafet. Ah. waaw li muy xel li moo gën a rafet wax dëgg yàlla. daa am auteur quoi. non macha allah moom que normalement set mois yi day soog mat wala mu manqué. Ah, tuuti ah kii kii bu demaatee tuuti dina dugg ko dana xar concours de. Mm-hmm. Mm-hmm. fi mu toll nii kay bu woon ak tànk bi xam naa bu demee ci espoir yi dina leen sonal. waaw yàlla yàlla ma waaw dina. ñi génn naa lañ ude tëng yi. tëng yi famille bu weex bi génn léegi ànd ak doomu Aminata Mbengue bi moo leen jur ñoom ay triplé lañ woon. ñaari tëgg waaw trépelé la woon foofu ñaari jigéen la woon ak benn bu góor bu góor bi jàll bu deux six la Joal moo leen jur Joal moo leen jur ay la ñu woon ñoom ñaar ñi ñoom ñi ku ci nekk da ngay soog a taawlu ok waaw ci kan ci doomu koromaxo bi mbote ah, yi doomu koromaxo bi moo leen jur eh, kon doomu koromaxo ndaa naan la boo xoolee mbote bu góor bi ak yaxam bi ah, ah lii du ñu xaru caaxaan macha allah. ah du ñooy xari caaxaan. waay waay tournel boobu bi mu dem nii. ku nekk ci nekk jur benn doomu góor. kii doom waaw jigéen la jur kii góor la jur waaw macha allah. ñoom ñoom ñaar ay seex lañ ay seex ñoo tobandoo woon quoi. waaw ñoo tobandoo ñoom ñëpp mbët yi yëpp presque ñoo bokk benn ci 15 jours yu ñu juddoo. ok waaw macha ci 15 suur yu ñu juddoo ñoo ko bokk. macha allah. dugal leen indi ma faj waaw lépp dina ñëw. lépp dina ñëw. waaw waaw Oudé. waaw lii ci grande famille la wala. waaw kii waaw. Uh-huh. waaw doom banque mondiale la kii sëtu Amadou Mbodj direct la doomu Amadou Mbodj moo ko waaw kii mooy Soda Diaw kii mooy Kiné. Sylla. Tine Sylla moo nekk nii. waaw xale bi téye Soda Diaw. waaw Ndaw. madame Sidi Ndaw nga ko tuddee quoi. waaw madame Sidi Ndaw moom laa ko waaw. waaw bu ko defee rek ah nga ci ñaan bu baax rek. waaw mi ngi nàmpal ay seex kii mi ngi nàmpal benn doom bu jigéen. Ah, ok te hmm. ok. Hmm. ñoom ñoom ñaata ba waaw dama leen a booleeg doomu koromoxo bi nag pour ñu tëbu foofu. waaw doomu Karamaxa bi laa leen boole lool. ah Oudé Oudé famille fi génne am nañ doole est ce que yëg nga ni TP bi dugaat na ci concours yi. waaw de lañ wax TP di wax dëgg yàlla moom buñ ko ci bëggee dugal it dañoo bëgg lor rek. TP ci naka ah xam nga xar bu jigéen bu am TP nga bëgg kaa jox yenn poids da koy gaañ. xar bu war jur warul jël yenn poids ok allah kon daal xar mu oyof moo gën quoi xar bu jigéen. xar bu jigéen daal jurul jox yenn poids da rek. Ah andi Yusuf ba pare Yusuf, sama Yusuf, yuusu tim timon la satu këram may sa direct la ah yusuf boobu di génn Masya allah ndànk rek ndànk kii Yusuf? yuusu waaw ah, yuusu mi ngi noonu te doomu karim may sa yaayam nekk benn famille bu ñu wax la balance uh-huh. hmm. la balance. waaw. macha allah. ah mais Youssou rafet na. Hmm. Oh, yàgg na fi fekk na fi kay. ñu ci ñaata moom. Ah, moom war naa jege quatre ans léegi de normalement. Ah. war na jege quatre ans. Ah. Oudé pourquoi ngay bëgg di liggéey ay maal yu bari. waaw maal de différence mooy tax nga am résultat parce que ku nekk ak la ngay jur xam nga yàlla moom dafa jëlul lépp boole ko ak boole ko ci lenn rek. waaw kii da lay may bopp bu rafet. kii mu may la yax kii mu may la L16 kii mu may la hauteur ak yax bi xool ko ah. kii dafa dafa équilibré wu quoi ah, doone manqué na yax doone manqué na geen doone cornille rafetul doone crinière bi dikkul waaw ku nekk nag dañuy monter lente rek ah. bu kii amee lii kii jox kii lii jox rek <laughs> Sénégal jëm kanam waaw nga élevage moom courancement la rek courancement la rek noonu lay defe doom yu rafet mi ngi si ñaata weer doomam bu góor bi nekk foofu seen maal bi xàmmee nga ko. Ah. waaw doomam bu góor bi nekk dindil tànk bi kay. doomu Yuusu ah. waaw doomu Yuusu waaw. allah waaw ah, demal jàppale ko mu ñëw. ah. Mm-hmm. Eh, rafet na de. ah chaque jour eh, càmm gi moom. niveau bi day yéeg rek. waaw ñun dañuy góorgóorlu rek. xam nga rek dañuy góorgóorlu rek li ci des nag ñu bàyyi ko ak suñu borom ndox suñu borom mooy mottali lépp. Uh-huh. waaw yàlla liggéey bi yu sekk yu sekk laa ko tuddee. yu sekk ban bergerie yu ah men waaw. Ah. ci léegi mu dëkk Kër Massar. sama xarit la de waaw Youssou waaw waa ju baax la. baax ku baax taalibe la taalibe suñu bàmba bu mag la. Ah, waaw. ci doomam moo jur kii am na bu bu ci hmm. allah maam Khadim, dama leen doom bu jigéen bu weex bi nekk ci kii ñaata weer la moo kii kii nag xam normalement war na dugg léegi ay sept mois gis nga boota bi ma ci bopp bi gis nga li ma waaw déggoo li la wax indi na ci point de corne yi indi ci doole ji waaw indi ma bopp bi indi na ci point indi na ci point de corne yi indi ci bopp bi waaw waaw macha allah xar bu baax moo jur bu sa yaay baaxee sa baay baax baax rek ngay mën a def. delloo daaw. Ah, waaw baax rek ngay mën a def. macha allah xaaral ma di xaaral ma indi bu jigéen bi nga xam. waaw papa Diango papa doom ah. waaw da ngeen doom bu jigéen bi. waaw doom bu jigéen bi lay indi. doom Diango bi ñëw. Oudé doom waaw kooku doomam bu jigéen la kii doomam bu góor la. ok xanaa ñoo xaw a maase ñoom daa doom yi. waaw soreewuñu noonu nag. Uh-huh. soreewuñu noonu xam bu bi bu am ak sore daal ñooy semaine bu ñu rek. Uh-huh. ñooy bokk semaine hmm. ah, bi rafet ah bi da nga koy génne moom. ah génne. da yaa ji baay bi fi toll comme mi ngi jëm mag. Ah, waaw moom ñi ngi jafandu rek. Hmm. ba ci kanam ba xam. wax na ah, ñu ngi ciy jëfandu rek. incha allah dugal demal nga yóbbu leen waaw. waaw rafet na eh, moom Youssou moom moom day def beauté moom. ah mais Youssou mii mën nga koo teg ci Joal. Youssou non non moom te àndagul ak Joal na courancé guñ ko ak ah. doo essayé loolu. waaw xam nga rek comme ni ma la wax rek mal de différence moom faaw toujours rek ndànk ndànk ndànk rek. waaw da ngay courancé rek yenn saa yi bu weetu day fekkee te bu wala xam nga rek comme box si box bu nekk yaa ngeeg benn maal. waaw yenn saa yi bu xar di déclenché buy tëbu doo ko yëg. Mhm. waaw day jékki-jékki rek nga gis ween yi mi ngi ñëw nga xam ne kii tëbu na ci maal sàngam. macha allah. Oudé. Euh, waaw yeneen femelle kii doomu quatre pala la kee doomu waaju baax la. waaw. ku ci nekk yaa ngi def sa premier porté. Mhm. waaw bu ko defee rek premier porté nga wax. kon ñu ay mag de. waaw non ay mag. doomu waaju baax. waaw kii doomu waaju baax la. Mhm. kii doomu quatre pala. weextaal weextaal mooy doomu waaju baax. waaw la balance. waaju baax ay doom yu euh, benn doom bi rek nag laa ci téye doom ah. yëpp def naa leen café. café nga leen. maa la wax lii. kon de temps ah. Ah, mais boo xoolee bâtiment bi. Ah. parce que xam nga xar yi ñoo ko liggéey. waaw ah. xoolal moom nga la kon da nga yëkkatiwaat fii. waaw da nga yëkkatiwaat fii xar laa bëgg bu wutalaat ay kër foofu. ci kaw ndax gën a féex. <laughs> Oudé doo doo doon liggéey xar nga ay kër la. fii rek ñoo fi dëkk. fii kër xar la. xar yi ñoo ko liggéey nag yow itam. duur yaa ngi dégg fii ay kër xar a fi am. waaw bu ñu nekk nag dama kaañoo. Oudé ko wax. waaw pison yi après nañ ci wax. parce que bëgg naa monsieur le maire di la fay chaque euh. mois sa décor bi nga def biir Thiès. ah décor bi de moom gaa yu ah. bëri dañ wax mais décoration bi de moom gaa yu bëri saa bu ñu xëyee ba wër. waaw vraiment. non mais ah, da ngay fay lañ dañ koy dañ koy kaas. waaw ah. éleveur yi koy kaas. Oh, ci euh, euh, kii ba. ci foire bi foire ba. man maa jël micro ne ko monsieur le maire. day ci li muy def mu toll nii kii dañu ñoom dañuy consommer de chaque jour ñu lekk sept mille cinq cent. ah chaque jour. macha ñu lekk sept mille cinq cent. ah ñaari yoo rafet nañ ñoom dañoo Hmm? dañoo porté. waaw dañoo porté waaw ñoom ñaar ñëpp tëbu nañ mais bii moo gën a sori quoi. allez dugal leen euh, ah, Oudé. dugal ko nga andi kële maam Thierno. maam Thierno. waaw Thierno ñoo laa ko tuddee. maam Thierno borom Poroxaan. waaw borom Poroxaan waaw ubbil ubbil bu baax bu mu képp. des na andi sëtu kii bi. sëtu jagoy bële. même même hmm. Malick Diop joxoon. keroog maa ngi dem Ndiassane. Eh. ci. wa gisan waaw Kunta mu naa ma jox ko ko maal bu rafet. ci joxen bu am mu muy wax lu rafet ci yow Oudé. doomu Sidi Ndaw laa ko jox. waaw la ma wax. doomu Sidi Ndaw laa ko jox. macha allah. yaay ji ba sa roi Basir la bi ma ko jox 100 roi Basir la. macha allah. ki mooy Rabia. Uh-huh. Rabia ngi noonu nekk doomu Ñilaan. waaw Rabia doomu ñilaan la. macha allah ah, euh, Rabia rafet na. Mhm. Rabia rafet na man man maa maa maa ngi xam lu tax nga bëggoon cinq box yow daal da nga bëggoon a ñëw bergerie bi lépp nga rëyit. non non bergerie sax lépp du ñëw lépp du dem day am lu ñu am lu fi des. Oudé da ngaa ñeme xont de. Oudé da ngaa ñeme xont de xaw ma li ngay jaay xont tax xaw ma. maa ah, Oudé. Hmm? ñeme xont gi lan la. waaw xont bi moom. xar yi foofu ñu di leen teral parce que wax dëgg yàlla ku la teral da nga kaa war a teral te ñun xar yi daf ñoo teral xam nga xëy-xëy suba saawaay mbote boo xam ne yaa ko juddul yenn saa yi un million taxaw wala deux millions ñëw taxaw ah damay jëlaat beneen million bi rek delloo damay jëlaat beneen million bi rek delloowaat leen ko ah, waaw nga xam ne ñoom ñoo ko liggéey waaw ah, moo tax ñu rafet xam nga xar buy lekk petit pois di lekk raisin ah, ah foo nga rafet nag man waxuma dara sax ci suuf léegi war nga fi ci ay saabu yoo xam moom la ñuy sangoo. waaw saabu yi comme ni ma la waxoon rek xar boo koy sangoo fel bu mu fekk ci yow wala teeñ da koy rey ba pare karaw gi dégg yëpp rek koy wàcce. sa der day rafet boo xoolee xar yi gëj na ñoo sangu lool mais boo ci xool da nga yaakaar ne tey la sangu. Ah? Hmm. ñu ngi set gëj nañoo sangu nii waaw. loolu moo sangu ah. lool gëj nañoo sangu lool sax. waaw gis boo leen raay karaw gi ni muy naawee nga xam ne ñii ñi ngi développé. xarbusur sa karaw danaan siñ fang mais xarbusur karaw gu dee gi day wàcc karaw gu bees gi di feeñ macha allah kii mooy taawam kii mooy taawam am cerno taw mam cerno nekk waaw taw mi ngi noonu jigéen na bi moo ci topp bi moom démb la juddu waaw mais moom bi mu juddoo rek yaay ji dafa daanu ok uh-huh. hmm. Jalan leen caméra yi kii mooy taw maam Thierno allah. waaw waaw kii Thierno waaw. nga ni kii expliqué waatal. kay mooy taawam. waaw kii moo ci topp. waaw kii démb la judd. ok ci démb kon ñi mu tëboon daal dañu dafa leen tëboon ci mi ngi ci foire bi rek koor mbuur bi passé normalement boo xoolee ay treize mois wala quatorze du ko passé. macha allah man Thierno ren waaw treize wala quatorze du ko passé. ku nekk. Hmm. waaw dugal man Thierno. jël na yi. jël waaw waaw. ko après nga génnee sotu Saloum bi Ousmane Diop. ndànk ndànk ndànk. Oudé rafet génn. waaw Cuulub bi papaam doomu Saloum la. yaayam mi ngi bokk ci ligne maam Góor Sylla maam Góor Sylla nag xam naa éleveurs yu ndaw yu bëri duñ ko xam mm-hmm. parce que kooku bi ngi juddoo woon kër docteur Sarr mm-hmm. nekkoon seexu Drogba mm-hmm. nekk xar boo xam ne vraiment résultat bu nekk def na ci am ëllu élevage waaw boo gisee wetam gii dafa jëli ci ay maamam waaw wet gi dafa jëli ci ay maam. Euh, foo ko jëlee yow non Sarl moo ko judd lu may ma ko Sarl ki Diouf bu Joal ko judd lu may ma ko ci faaru mbuur bi la judd bi faaru mbuur bi amee ñetti fan ci la judd. waaw xale bu ndaw ndaw la moom maam Thierno ay classe lañu rek. Hmm. la yooyu. 15 mois yooyu quoi. waaw moom maam Thierno ay 14 13 14 kay parce que boobaak léegi motul quinze mois. ok ok waaw Mbour beeg léegi matul 15 mois. matul 15 mois ok. Hmm. macha allah rafet na de. non rafet na kay deuxième la. rafet la leneen la ñuy wax waaye rafet na moom romb na ko. Ah, wàcce wàcce gu fi moom. non wàcce na nag dafa teel a wàcce sax parce que 5 mois am la tëb. waaw 10 mois net fekk na mu wàcc. macha allah waaw oh, rafet na ah. nu mu tudd. Ousmane Diop laa ko tuddee président Mbour bi. ah, ah mooy président <laughs> station Mbour ndax foire Mbour bi la. juddoo la juddoo ko Ousmane Diop. mu tuddee ko président Ousmane. jaajëf ah rafet na ku ñëw boo ko xoolee rek sa xel day dem ci gaynde wala mu dem ci du gaynde waaw kii eh waaw kii boo xoolee papam doomu Saloum la du gaynde doomu Saloum la mm-hmm. kon <laughs> benn bagage bi la rek waaw sotti ceeg def ci la rek waaw benn la de mm-hmm. kon nag léegi nii looy wax looy wax looy ñu waajale foire bi di ñëw des na benn ndaanaan bu war a génn yooyu tam looy wax éleveurs yi daal li ma leen di xamal mooy ku yor lu rafet ah. bay boo booy ñëw nga indi ko waaw ndax bis kenn du ko xeeb hmm. boo ko xeebee rek di nga am gàcce ah, waaw bis moom des koy waajal des koy fonk na nag Cees kaay xewle billaay ku dof dof la benn fa sa <laughs> lu kenn xoolul boo dikkee di nga mere ku deful dara waaw ndax ndaanaan lu ne dina ndara ngi ñëw Louga ngi ñëw Touba ngi ñëw Daara Jolof ngi ñëw Linguère ngi ñëw Dakar kenn waxaaliwu ko moom ak Mbuur kenn waxaaliwu ko waaw xam nga foofu ay éleveurs cama cama nekku fa waaw wax dëgg yàlla moo tax moom maanaam bis moom bu ko xeeb benn yoon waaw ndax booy dem xare xoolal ngànnaay bi gën a xareñ nga yóbbu ko waaw ndax kenn du la dóor dóoraat koo dóor nga fayu mu xam ne kii kat mi ngeeg dara day daal di <laughs> <laughs> waaw xam nga daal waaj bu baax a baax macha allah lan jënd. macha allah xaadim mu jaay la kaas. lan jaay waaye naanaan bii di ñëw ko ci doomu Madagascar la yaayam nekk doomu Mors. da nga koy def ndànk rek def ko ndànk ndànk rek. yaayam nekk doomu Mors. waaw yaayam doomu Mors la moom mu nekk doomu Madagascar. indi ko li mu jóge xam. ah li mu jóge moom. kii man maa ko jëndaloon sama benn xarit bi muy xale. mais kooku bi mu ci liggéey ba pare après laa ko récupéré ci moom. pour may dem cee am dara na bopp bi féete ne la ndax mu xaw a kon waaw moo tax ma la na bopp bi féete nii waaw. bu baax baax na waaw. macha allah. mu toll moom léegi ñaata moom normalement léegi war naa dugg ay vingt six mois. Hmm. vingt six mois. naa moom it maal édite yi dañ koy mag lu bëri sinon kon dinaa mën a bokk ci pàccaxoo bi de. waaw ah, maal édite dañuy dugg ay quatre ans. ay trois ans yooyu. mais ah. moom ah, trois Mali Mali léegi vingt six mois dañuy dugg de. ah, ah waaw. Hmm. dara ko defar balaa boobu rek. ah balaa boobu kay defar xajatu fi <laughs> foire agsi na. ah waaw mais dara. buñ ko buñ ko bàyyi rek. waaw foire agsi doole ji yokk ji. waaw yàlla baax na. waaw na de. Hmm? waaw am na doole fii. xale la. macha allah. ah Oudé affaire kon daal gars yi moom nañu nañu waajal rëyit waaw waaw rëyit moom faaw ñu waajal ko faaw ñu waajal ko macha allah le yaa ngi koy jël normal waaw waaw ki kay moom ngeen nu tudd Boubacar sama benn xarit laa ko tuddee Boubacar moom laa ko jënd loon bi muy xale bi mu ci liggéey ba pare ma récupéré waat ko daal di jël tur wi ko ko waaw maa bu rafet la waaw bu rafet la. waaw kon Touzé dañuy tëjee foofu wala. waaw xale la ah. ak ba euh, yi rafet na. waaw dégagé na am na fi doom moom. amoon na fi doom nag mais jaay naa ko parce que doom yi sax amewu ko fii kër Boubacar la ko amee woon. waaw waaw kër Boubacar foofu la amee woon doom yi. Hmm. kon ñu tëjee foofu wala. waaw mën nañoo tëje foofu. kon yi. daal message mooy. Hmm. bokk ndey bokk bàyyi yéeneen te jàmm bu ko defee rek élevage mën a jëm ca kanam nañ bokk ndey bokk bàyyi yeneen te jàmm lu ci waay yéene sa bopp nga yéene ko sa morom ku ci nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom boo ko defee rek wax dëgg yàlla yàlla mën naa defar lépp ci kàttanam ak dooleem waaw ndax mbooloo mooy doole boole xol yi mhm. nekk benn bokk ndey bokk bàyyi waaw ah, bu ko defee rek jàppalante nag ci dimbalante aussi bu ko defee rek suñu borom dina defar lépp ci kàttanam ak dooleem kon rendez-vous le 2 ah. rite promenade de Thiès duma ku man sa morom duma dara du sedd dara du sedd non dara du sedd macha allah waaw ah. bu fa ñëwee moom wax dëgg yàlla foire bu doy waar mi ngi foofu kii nag day sama rakk ju baax a baax wax dëgg yàlla di ku ma déggal waaw wax dëgg yàlla donc waaw joxaat ma numéro bi adresse bi joxaat ma numéro bi adresse bi. waaw numéro bi mooy 77. 637. 09 66. Ibrahima Diagne ñu gën kaa xam ci Oudé Diagne Mbour 1 677 637 09 66 en face garage Kalando Mbour 1 boo rombee hôpital américain bi wala boo rombee stade Lat Dior foo laaj Ibrahima Diagne di Oudé ñu andi la fa surtout boo xamul jëlal borom moto Dakarta nekk kër Oudé Diagne laa bëgg a dem éleveur de Thiès waaw mouton race Ladoum moto Dakarta boo ko wax dina la indi ba ci kër gi doo sonn waaw boo la neexee boo yoree sa oto da nga naan ko jiitul ma topp sa ginnaaw dina la womat ba ci kër gi doo am benn jafe-jafe ah asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi rafetlu jotaay bi. te wax dëgg fa yàlla yàlla dañ cee tombale quoi. waaw mm. ah, parce que man moom wax dëgg fa yàlla yàgg naa ci kër gi mu nekk suñu kilifa. Mm. waaw yàgg ci xar lool ba pare yaatu yaatal te loolu dafa am solo man ginaaw yàlla bu mu bëggee xar moom mi moo tax ma bëgg ko. Mm. parce que fii ci garage Kalandoo bi laa nekkoon doon fi daw fii fi lan doon utee ndox ak yëpp di def suñuy oto kon laabira moom moo waral lool. te moom ni mu ci mel yaakaar naa ni éleveurs yëpp bu mu melee ni moom kon donc kenn dootul jooy dara parce que élevage moom bu yaatu xisee am rek yaakaar naa ni ñëpp dinañ ci jariñ rawatina éleveurs yi ndaw yi parce que ñoom li ñuy am am nañ ko ba pare amatum leen lu ñuy prouver yàlla may na leen ci li ñu leen may ba pare ñi nga xamante ni que nii nag ñun ñoo amagul xam-xam bi amagul expérience bi kon donc dañuy mën a toog seen wet rek ñu ñuy jàngal te yaakaar naa ku ko jige ci wàllu xar lépp lu mu ci xam dina la ko wax yàlla dénk na ko xol boobu kon donc ñu ngi rafetlu loolu lii nag yàlla dama cee tombale dama cee tombale ñu ngi jéegul asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kàddu yu rafet na champion borom borom borom borom borom borom borom ginaar yaa ngoog. borom non borom waaju baax. borom waaju baax waaw borom waaju baax woon ah. mais xam nga rek. dama ah. koo ñaax moo rek am am nañ ci leneen pourtant kii moo yor promenade. ah kii moo yor ah, promenade ah moom moo ko yor. <laughs> ah yow promenade jeex wala loon seet. yaa moo ko yor waaw moo ko yor de. espoir du Sénégal. ah <laughs> waaw na ma na ma envoyé après photo. non dinañ la ko jox. mais comme li may wax gars yi rek xam nga Baye Oudé moom ñëw na neexal na leen ba neex. mais nee leen ku mën sa morom du ndax Youssou Ndour na Mm-hmm. Euh, yéen a ngi waaj Bercy mais jamono ji yéen a ngi waaj Thiès la ñuy wax jamono ji moom ñëpp xam nañ ni Thiès la ñuy waaj mm-hmm. mm-hmm. mais li ma waxoon keroog nag nee naa leen gars yi Ligue des champions lañ nekkoon tourné nañ Dakar nag gars yi def nañ foire yëpp ba pare mais instant bi ñu ngi ci mondial bi coupe du monde baa ngi nii tardé perte nga bi moom lu waaye wax lu dul Thiès ah. waxoo dara Ligue des champions yi jiyee nañ ko ba pare coupe du monde yu Thiès la du 2 au 12 mai doon ko fàtte fii Thiès place promenade gars yi ñu may kenn leen kontaan nañ jaajëf